Sénégal set maa ngi am mbégte lool ci dalal bi ngeen ma dalal ci bisu rabi al awal di bisu ki tax ñu sàkk ñu muy Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam yal na yàlla tas ñu ci barkeem di am mbégte lool nag eh, en tant que presse bu am maanaa ci àddina bi ngeen ñëw fii pour ma barkeelu ci comme ñëpp bi jaay euh,

te ku ne xam na ni gàmmu moo tax Tiwaawan ñëpp xam ko ci àddina bi ndax Seydi Seydi Hajj Malick radiyallahu taala moo tànn bisu màggal juddu yonent bi di ko def képp ku ko def duma ni ci moom nga ko royee waaye daal kenn jiituwu ko ci donc bu yàlla ënnee lu toll ni mbas mi mu bloqué àddina bi yépp ba màkkatal mukarrama sax wàññi affaire yi acc wàññi affaire yi dem beeg dikk bi Euh, ñun toll woon ci lu ñuy wax troisième vague mu indi ay jëye yu mag ba suñu mag ñu bëri ak suñu ay kilifa yu bëri euh, wuy ji seen boroom euh, tabaarakallaa jóge ci ndogalu sunu boroom dellu tàbb ci ndogalu sunu boroom la ndax nag daw feebar moom yàlla moo ko santaane te mbas du tey la fi musa am ci àddina bi te ba mu amee am na nu ci mag ñi taxawee woon moom it mu topp tànk mag ñi rek ba keroog ñu naan jeex na ci àddina bi ku ne da nga war a moytu te bu ñu bàyyee nit ñi ñëw ak seen yéene ci Tiwaawan xëy na dina indi beneen euh, musiba boo xam ne xëy na moom du bëgg a gàddu àq boobu moo tax tabarakal la en tant que njaboot ñu nangul ko ko rek daal di ku ne gàmm gàmmu ci sa kër comme ni ko waykat ba waxee nag ku nekk gàmb ci sa kër ñun ñoo ngi gàmmu ci suñu kër incha allah. en tant que musulman xam tamit euh, euh, taalibe la ban yëg nga am tey bis ah, loolu moom kenn du ko taqaleeg dara Sidi Haj Malick euh, ci radiyallahu taala anhu moo njëkk topp yonent bi topp ko topp ko ba wax laylal arubati alla durru fi rajabin thumma al munaadi yunaadi musmi al loolu du ay kàddu yu ndaw donc képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulillah tey jii sa bis la loo amee gëléem rayal soo amee nag rayal soo amee ganaar rayal koo mën a bégal bégal ko koo mën a teral teral ko ndax ki ñuy màggal moo ni toll donc toog sa kër def ko na salaatu ala nabi yi bëri ku dem jàkka ja def ko fa ku toog ci mbedd mi def ko fa ah ñaan yàlla nag suñu borom subhanahu wa taala déwén heure bi Tiwaawan fees dell ba rembat nam daan def loolu la ñuy ñaan te loolooy am incha allah. di ñaan yàlla déwén Tiwaawan fees dell ba rembat comme ni daan defee mais feneen fu fees dell ba rembat ba am na ci sotti di Expo Dubai 2020 bi nga euh, euh, yi tey nga àndoon ak président de la république naka nga dundee événement boobu. waaw euh, loolu moom événement ci biir événement yi la tamit parce que. Euh, du at mu jot mu am du ñaari at yu jot mu am par périodicité 10 ans lañ koy organiser je me souviens la première édition s'est passée à Londres euh, booba euh, tamit lu mel ni moo fa xewoon 191 pays ñoo fay daje muy lu ñuy wax jongante ci wàllu économie parce que àddina bi dafay dox progrès yi di yaatu Sénégal nag mënula des ginnaaw ci jongante yu mel noonu ndax dafa tëgg benn plan bu ñuy wax plan Sénégal émergent Euh, à l'horizon 2035 muy lépp secteur euh, secteur yu mën a développer Sénégal président bëgg ko euh, doxal ci Sénégal am nag jéego yu rëy yum ci def Dubaï doon dëkk bi accueillir cette coupe du monde de l'économie muy expo Dubaï 2020 2020 ñu invité woon ca Sénégal am ñaari journée yun ko yun ko jagleel président ñëw fa Euh, vraiment ñu am fa pavillon euh, daal di fay exposer suñu ay jéego ci progrès yi mais nag muy tamit occasion bu ñuy def échange de savoir de savoir-faire et de savoir-être ak échange de technologie et partage ci culture ak ci aada loolu lépp ndax Sénégal nag avant ñuy am pétrole seen arme bu ñu njëkkoon am mooy seen culture yooyu yëpp nag président jiite ko ànd képp ku bëgg sénégalais am na ñoo xam ne ni sax bokkuñ ci délégation dañoo dem rek spontanément pour fekkee loolu ndax nag ku nekk euh, sa réew moo la ñor xutbul watani minal iman te toppatoo sa réew ci jaamu yàlla la bokk may félicité nag journée yooyu ñu jë ñu jagle Sénégal président am ci taxawaay bu rafet Sénégal wane ci xar kanam bu rafet jël nag yeneen décision pour mën a eggale plan Sénégal émergent boobu ci ni mu ko bëggee euh, loolu daal lañ fa gis. muy ci biir euh, expo boobu ñeen rek jàpp ni euh, président de la République dafa doon jaay Sénégal waaye am na ñeneen ñu jàpp itam tournée boo xam ne daanaka amul palte amul place ndax amul lenn luñ boo xam ni bañ ko tàmbalee annoncé léegi na daw ba léegi mat nay at léegi meuble lañ ko teg ak leneen loo xam ni ñu ngi koy commencé mu di port bu Ndayane ah, tey yooyu nga xam ne ñu ngi koy jagleel président de la République mu dee nee nañ tournée bi yàqum xaalis la ñoo ko gisee yow. waaw xam nga les commentaires sont libre mais les faits sont ñun ñu demoon xam nañ ni bu fa président Macky Sall nekkul woon ñun ci suñu bopp duñu am lu ñu neex ñun ñi bëgg Sénégal laa wax nag parce que euh, li sëriñ abdu Al Amin daan wax naan mbott yi ngoox yi ngoox yi nawet yëpp ku leen nar a tàcc sa tool dina booy boo naree li ñuy wax yëpp ci presse bi nga nar ko tontu dootoo liggéey te comme nag liggéey lañ ñu fi tege ku am fulla da ngay bañ a déglu yooyu yëpp te liggéey rek man daal gisuma fa lu dul Sénégal euh, taxawaayam am na solo gisuma fa tamit lañ fa wax yëpp ndax des fois man damay duma comprendre les gens comment ils expliquent situation yi ñuy décrire ci réseaux sociaux yi des fois da ngay fekk situation ñu décrire ko noo xam ne yow ma fa nekkoon sax da nga naan est-ce que juumuma est-ce que nekkuma woon feneen. waaw mais mais réew nag tamit ku te ne réew ma na nga toll lu toll ni Sénégal ñu jox ko ñaari fan ca Dubaay di ko sargal di ko déglu ah yaakaar naa ne ña fa ñëw sax te président yi yóbbuwu leen ci poosam sax ñoo fa ëpp ndax rek nu leen Sénégal tollool nit jóge na fu ne nit jóge na États-Unis sax ñëw ci xew ba nit ju nekk na ay sénégalais ñu ngi foofu y de des sénégalais de Dubaï moi j'étais ministre des sénégalais de l'extérieur mm-hmm. de la diaspora. Je sais qu'il y a une communauté, forte communauté de Sénégalais dans, dans, dans, dans les Émirats arabes unis, à Sharjah, à euh, de Abu Dhabi, qui sont venus spontanément rencontrer leur président de la République. Parce que le président de la République est une institution, c'est le, le père de la nation. yow mi boo nekkoon bitim réew dégg président dem xool ko rek day doon mbégte ci yow ba tax na daal lañ fa wax yëpp amu fa Euh, lu baax moo fa amoon ci Sénégal te ci fan yi néew di ngeen ko xam TER bi ngeen di wax di ko suufal te TER bi du lu ndaw de parce que ñun on a vécu on a on a vécu dans les pays de waaw mais yàkkamti dañoo yàkkamti rek waaye incha allah bu ñëwee di ngeen xam ne lu baax la euh, parce que nag bu ko neexoon tamit mu bañ cee loolu li bañ ko cee fekk mu def ni ñu ko fi jiitu euh, bañ a gisal Sénégal yooyu jéego yëpp mais bëgg Sénégal bëgg Sénégal am taxawaay ci concert des nations moo tax mu jël lu mel ni TER nga xam ni transport de masse la le plus gros projet de l'Afrique de l'Ouest donc qui e puisse qui puisse exister waa ca kanam di ci kanam réew di bët xam nga xaar moom yàggul parce que yàlla ñun ñëpp yàlla nañ ko fekke tatal ko bu ñëwee di ngeen xam ndax euh, du projet politique euh, macha allah yàlla nañ ko fekkee man de kontaan naa ci boobu projet TER parce que nag Euh, ku nekk Europe pendant vingt ans boo waree dem sa rendez-vous euh, doo am benn difficulté tu prends les métros sa oto sax boo ko amee mën na am dix ans doo ko utiliser ndax transport yu baax transport de masse Sénégal daf ko soxla parce que ñi am mooy jënd oto bëriwul en général car rapide yi fi nekk ak Ndiaga Ndiaye yàgg na donc bu président xalaatee jël projet bu mel ne TER le train express régional rapide train boo xam ne nii da da lay yóbbu aéroport ñun fraction de de, de seconde loolu lépp euh, nañ ñaan yàlla daal man na xam lu may ñaan président yàlla na ko yàlla kattanal ba ñu dem ba TER bi wër Sénégal waaw loolu daal lay ñaan waaw moom li mu wax loolu yàgg na ko wax parce que le Sénégal zéro déchet bi mu demee visiter un pays comme le Rwanda ci la gis ni euh, ni Rwandais yi def après une guerre civile ba seen dëkk doon un pays émergent sénégalais war na ko def xam nga nag aussi man damay bëgg des fois sénégalais yi ñu bañ a jël lépp di ko giiñ président Macky Sall parce que Séné Macky Sall gënu leen a doon sénégalais Macky Sall yàlla moo jël réew mi teg ko ci loxoom waaye nit la koo xam ne ni sénégalais la lu mu bëgg sénégalais rek yow miy taxaw jàkkaarloo ma war nga koo góorgóorlu ba bëgg ko sénégalais. ba tax na ñun ñoo war a def suñu rétrospective ñu xool lan mooy suñu sikk lan lañu war a taxawee tamit ci suñu réew parce que autant ñu doon ay citoyen autant dafa am lu nu yàlla teg ci suñu réew pour ñu mën a taxaw taxawaay bi ba tax na la critique facile lu président def nit ñi jékk saa di ko critiquer à tort et à raison ah des fois doo comprendre man dama bëgg ñu xoolaat suñu bopp civisme boobu dafa dafa war Sénégal parce que Sénégal sooy dee seet ñii dañuy defar ñii di yàq te ku ci ne sa buntu kër boo ko doon xëy di bale Sénégal l'ensemble des Sénégalais euh, voilà justement non amul du ko éggalee ñun ñëpp on a été confronté par cette grosse pandémie mondiale qui est le Covid-19 mu ñëw ne tous les élans ne toutes les initiatives yàlla na mi nga xam ni moo ko fi teg ñoom moom koy dañ koy ñaan mu jële ko fi ci lu gën a gaaw ba ñu dellu mais président Macky sàll fi mu jëmale Sénégal moo gën fuuf fi mu ko jële voilà man moom awma awma dro lambar lambar lambar lambar lambar du doon sama kàddu parce que euh, lambar lambar kenn du ko wax sax sa sa xaj boo boo boo jéppi euh, li ma xam daal mooy il au cœur, il a Sénégal au cœur. Il est en train d'abattre un excellent travail. nga xam ni bu yàlla dogalee 2035 ñu fekkee ko ñun ñëpp dinañ xam li Macky Sall yéene Sénégal 2035 laa la wax parce que son son plan émer Sénégal émergent est bâti à l'horizon 2035 donc ku fi mënti ñëw boo ñëwee di nga eggale plan Sénégal émergent boobu donc bu ñu eggee ci 2035 incha allah dina xam la pré lan la président def ci Sénégal 2024 euh, avant 2035 la yàlla nañ ko fekkee tamit tatal ko euh, waa loolu moom wax lu dikk wax lu dikkagul la en tout cas il est dans son mandat il est en train de travailler il est en train de poursuivre son ambitieux programme plan Sénégal émergent parce que man référence économie référentiel économie bu mel ni plan Sénégal émergent daf ma ñor ñun ñi ñëpp loolu moo ñu dugal ci politique parce que xëy na bu dul woon ak ambition boobu président am ak vision boobu mu am ci Sénégal ñun ñi ñëpp duñ dugg ci politique parce que nag président bu ne jaar na fi digg fi lu ne te dara bougé wul waaye nag boo gisee ñun ñii ñu nekk ci gox goxaati yi ilif lu toll ni département bu Tivaouane mu am 18 collectivité locales président tëgg plan Sénégal émergent toftal ci yeneen programme yu ñuy wax PUDC Promoville PRACAS bourse de sécurité familiale nga xam ne nii kenn xamul woon ni yenn couche sociale yi bokk nañ ci réew mi ñu dem ba ñoom ñoom ñu ci gis seen bopp mu indil ñu euh, tout ce qui est programme euh, de développement ah dañuy ñaan nag yàlla may ko taxawaay ba loolu mu eggale ko bu ba beneen président bu fi ñëwati di nga xam ni joxuñu la réew mi pour leneen lu dul liggéey on a beau nag parler lu ne ñu wax ko Macky Sall le président mais kenn du ko dindil sa son sa qualité liggéeykat la nit ku bëgg liggéey la nit ku bëgg résultat la te loolu rek la ñuy doyee njiit faluñu ñu parce que ñoo fi gën falu ñu parce que ñoo fi gën famille faluñu ñu parce que ñoo fi dàq dañ fal pour ñu góor góorgóorlu ci lan ñu fal indi ay résultat ba bu ëllëgee keneen ku fi ñëw ci réew mi ñu liggéey ñu yokk civisme bi yokk amul de notre patrie yokk taxawaay yi bàyyi wax ju bëri ji parce que nag wax ju bëri la sëriñ Abdou Al Amin doon wax rek wax feesul mbuus bu nit xëyee di wax ba ngoon jël ci mbuus mi ëf ko doo ko gis mu jóg soo jëfee lu tuuti nag mu am njariñ ci askan bi man daal loolu laa gëm. waaw loolu loolu moom euh, c'est une actualité je pense que ñi mu dal ci seen euh, kaw ñu ngi koy lijjanti parce que ils son tous les deux député Euh, l'Assemblée nationale est en train de s'occuper de leur euh, immunité parlementaire en ce moment-là bi day suivre couram c'est une affaire de justice la justice va man loolu laa ci xam nekkoon na ministre des Sénégalais de l'extérieur waaye moment boobu lu mel nii dégguma ko fa gisuma ko fa waaye nag li ma xam mooy passeport diplomatique c'est un document important képp ku ko yàlla jox nga am ci droit bañ jox la ko war nga am seet nooy taxawee war nga seet nooy doxale parce que nag soo xasee ba yore passeport diplomatique tu représentes diplomatiquement ton pays même si tu n'es pas diplomate de carrière ou bien diplomate de métier tu es reconnu et tu es euh, euh, je veux dire marqué tu es marqué et tu dois faire très attention pour que à travers ce document de voyage kenn du ci yeb sa réew ba ci am lu lu mu koy gàkkal. madame hmm. mooy say samay ambition mooy euh, fexe ba Tivaouane li fi Macky Sall tàmbali ci ay jéego développement mu egg la seule ambition que j'ai c'est de voir Tivaouane etre comme Médine. Et quand je dis Tivaouane, le département s'entend. Parce que qu'aujourd'hui, je suis chef d'institution départementale qui englobe 18 communes, donc collectivité territorial yàlla teg ma si bopp bi ma am nag jéego yu rëy yoo xam ne nii dama ko def tëgg benn plan de développement départemental arrimé ko ci plan Sénégal émergent di ñaan ba territorialisation des politiques publiques yi ñuy wax mu doon une réalité dans mon département fu ma mën a dégg partenaire wuti naa ko pour indi ko mu jàppale ma ci liggéey bi malgré li ma fi def bëri na document bi bu paree dinaa la ko jox je vais à toute la presse malgré nos faibles moyens qui s'articulent autour de 300 millions par an le conseil départemental a fait énormément de choses yu ñu xeeb nag parce que jusqu'à présent nous ne bénéficions pas de fiscalité propre nous avons juste des fonds de dotation qui nu permettent de fonctionner et de fonds de concours qui tournent aux alentours de 120 millions mais boo gisee nos compétences yi ñu transféré mooy la santé l'éducation muy le sport muy la jeunesse lépp am na jéego yu ñu fa def au niveau de l'éducation tout le monde sait que au niveau du département de Tivaouane deux y et lycées bi ñuy ñëw fekkuñu benn collège ak lycée pratiquement yu ci bëri amuñu mur de clôture il leur manqué des blocs d'hygiène ñu jël ci suñu maigre moyen yooyu jël ko def rattrapage bi ce gap parce que personne ne peut des élèves qui sont dans une école di fa yendu toute la journée te bu bu ñu saf soxlaa seen bopp duñu mën a am fu ñu ko defee ji donc ce gap là de manque de bloc d'hygiène le conseil départemental l'a rattrapé grâce aux moyens que l'État lui a euh, virés. Nous avons aussi fait des efforts au niveau de la santé. hôpital Mam Abdou Aziz Dabakh tout le monde sait que ça revient de droit au président du conseil départemental de tout le Sénégal j'en suis la présidente du conseil d'administration depuis notre accession à cette euh, station donc de de conseil départemental ñu ngi jéem a def jéego yu rëy au niveau de la santé di dimbali le l'hôpital par environ presque 30 millions par an euh, pour ñu euh, jënd matériel lu mel ni électroencéphalogramme defaral leen seen service d'urgence bi defaral leen seen local des déchets euh, hospitaliers euh, di leen jëlal ay agent di ko fay tabaarakàllaa yooyu yëpp ñu ngi koy def ak xeeb. waaw euh, yàlla dafa def def nag tali moom état rek moo ko mën a defar ñun nag suñuy moyen parce que loo xam ne waaw loolu tali moom état rek moo ko mën a defar. c'est une vieille doléance le président de la République l'a au au cœur l'a à l'esprit j'allais dire mais xam naa ni yàlla dafa dogal joto xëy na defaguñ ko mais ñun moom bu ñu amoon moyen yuñ defaree tali du kenn duñ ci xaar incha allah ba cil max duñ ko duñ ko def tali boobu am na nag ay bonne volonté yoo xam ne ni c'est des acteurs politiques yu investir di fa def ay piste euh, di fa def ay taxawaay mais mbirum tali moom tabaarakàlla loolu état rek moo ko mën ah te état rek moo ko mën bu ko mënoon dinañ ko def loolu daal laa ci mën a wax. Euh, waaw euh, mënuma wax euh, mënuma ci wax dara pour l'instant parce que ku ne dégg na président de la république bi mu jógee tournée économique am bi mu defoon à Kaffrine vers Fatick mu ne nañ ko déglu nit nag boo amee chef parce que man politique. yàlla dogal na ci loxo Macky Sall euh, moo tax ma dugg ci waaw bu dul woon ak moom ak bëgg ko jàppale xëy na duma politique parce que maa ngi woon ci beneen yoon donc boo amee chef d'équipe mu tëral discipline ni lii laa na ma ñëpp déglu man je suis une militante disciplinée qui écoute toujours le pouls de mon waaw euh, non man je suis déjà positionnée je la présidente sortante xam nga kon euh, ñëgam ñëppay bëgg masa man mi nekk ci ci ci bopp bi di doxal nag def résultat euh, suñu demee di di di jongante ma mën a wax ni def naa lii def naa li xam nga ñiy bëgg dañoo gis rek xëy na mu doon bébé bu dara xewul amul woon tubéy amul woon simis amul woon dàll ñu jël ko tout ñu solal ko mbubu solal ko daal ba mu mën a dox ba sax doon jagamaar bu bu neex a bëgg ñuy bëgg ndagam nag ñoom ñi ko gis de loin ñenn ñi sax doonoon conseil te mosuñu fa teg seen tànk ñëw di bëgg si parce que man mi nga xam bébé boobu yàlla dogal na ci sama loxo yi la taaroo ci la màgge mais euh, bébé bi mooy conseil départemental bañ koy jël dara amu fi c'est une nouvelle création xam nga ça a été créé à travers l'acte 3 de la décentralisation dara amu fa woon li fa am yëpp siège bi par commencer à commencer par le siège maa ko wut ñeneen ñi bëgg ñu ci bëri dëgguñu seen tànk ca conseil départemental même s'ils sont conseillers donc ndagam ñoom ñoo ko mën a bëgg te moyen ma amoon moyen ci ñàkk ñëw boobu di fekke session yi ma daal di leen di rajee xam nga amoon naa ko donc man maa tax ba ñoom maa leen permettre ñu doon candidat ndagam ñoom ñoo ñoo ko mën a bëgg masa man mi ca nekk depuis sept ans di xeex xamaguma man yàllaay tabb est-ce que mën naa la raconter benn anecdote est-ce que tu sais que première euh, élection yi conseil départemental naruñu ma woon a boole ca liste ba wallaahi yàlla yàllaa ma ca boole waaw ci loxo Macky Sall yàllaa ma ca boole ndax ba ñuy defi liste yi juróom-ñaari góor ñoo dem retiré wu dem ca EDK ba di def liste yi te ma doon ministre sortant d'un gouvernement ñu boddi ma dem di def liste yi nar ñu ma caa boole yàlla mi dërëtawul booba pare na ci pexe moo tax lañ naan boo bëree pexe na nga bàyyi pexe yàlla xel boobu sunu borom pare na ci pexe mooy lii ñu may nëbb di dem di ko defi man maa koy jiite. ba ñu paree ba def seeni liste ba ñu gañ a liste ba ma muyee la mayo nag ndax man yàlla dafa dogal du ma nit ku ñàkk jom damaa muyee la mayo ñu campagne ma ànd ak ñoom malgré tout ça. gañe ñu dem may seet ban candidat moo bëgg conseil département pour ma jàppale ko fa ma tem toog ca. commission Benno Bokk Yaakaar fa lañ ma désigné ni ma président nee na yaa bëgg yow la bëgg nga jiite xanaa kon yàlla rek moo fi ne ku yebu wóolu ko kulul xaq wala kana murran gis nga yàlla moom rek moo fi ne ndagam nag ñooñu ñoo mën a ñëw di bëgg ma masaman mii fa toog sept di fa galeere di fa xeex di fa taqale ba mu taxaw kon li ma bàyyi bañ a wax rek moo tax nit ñi di porox ndool di wax waaye man su may wax bilan laay wane mooy présidence conseil départemental jox ngeen ma ko pendant sept ans lii laa fi def lii laa fi def lii laa fi def lii laa fi def lii laa fi def ci kanam euh, bu ñu ko yàlla mayee dina leen invité autour de table wax leen sama capitalisation de toutes les réalisations qui n'ont laissé aucune collectivité territoriale du département en rade fépp fu commune nekk ci département bi le conseil départemental dugal na fa loxoom defuma ko man kese nag parce que baadoo la kese mooy nekk ci équipe di liggéey yëf ya pare mu ni mën a dama ko ànd équipe bu dévoué équipe bu taxaw equipe bu gëm développement équipe bu ma jàppale ba ñu def résultat yooyu loolu nag dinaa ko wane parce que nag boo liggéeyee am loo wane il faut nga wane ko noonu rek la toll waaye nag damay déglu sama parti ba ñu désigné ma suñ ma désigné ma continuer liggéey bu rafet bi ma tàmbali suñ ma désigné wul li yàlla am du conseil départemental kese yàlla li mu yore conseil départemental moo ci gën a tuuti te xam naa ni fuñ ñu def en tant que femme de mission dañ fay liggéey ndax poste du tuuti conseil départemental dara amu fi de waaye ki fi nekk am na màggaay ñi fi nekk am nañu rëyaay am nañu vision ba def nañ fi dara ndax dama daan dégg suñu benn wayjur Abdou Karim mooy wayjur Abdou Karim Fofana l'ancien ministre de l'urbanisme muy euh, góor gi Ablaye Fofana bañ ko nommé ministre de la communication sous Senghor xam nga nag man nag damay doomu mag du ma mag waaye mag ngee ma yar mu ni ñu ni ko poste bi la Senghor jox dafa tuuti mu ni poste du tuuti ni tey tuuti mais conseil départemental bi dara amu fi waaye jéem nañ fi ba def fi loo xam ne ne taaru na ba ñëpp bëgg na ko lii man laa wax waaw loolu lañuy wax parce que nag euh, kuy liggéey ku liggéey ba weer wi dee bokkook résultat kuy wax muy waaw loolu moom du lu ñuy rafetlu parce que politique du animosité politique du bu dee am na. parce que nag man wóoruma dama tukki woon ba démb laa ñëw je l'ai suivi à distance comme tout le monde ah mais politique euh, la violence c'est ma des faibles euh, soo bëggee convaincre nit ci ay idées ak ay jëf nga koy convaincre mais ci ay violence nañu arrêté violence bi parce que ñun ñëpp benn lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. boo leen bokkee dëkk déjà vous avez un dénominateur commun man de ñaanuma yàlla di taxaw benn violence ci politique jaru ko nag. Euh, euh, waaw moom daal tabaarkàll lu mu ci mënti doon rek nañu teg violence bi ci suuf parce que jaru ko ndax ñoo xam ne nii tey jii ku ci dem wuy ji sa boroom sa moroom du ko dina fa taxaw mm-hmm. koo xam ne nii lu dal ci benn famille dal na ci beneen nan seet mbokk gi ni bokk. ak li ñu bokk muy bokku dëkk ndax boo bokkee nit dëkk rek seen passeport ñu bind ci Tivaouane rek déjà loolu c'est un dénominateur commun moom laay faral di wax ci conseil départemental bi ma jiite j'ai de l'opposition dans le conseil départemental mais je suis en bon terme avec eux parce que dama leen di wax ne duñu ay duñu ay noonu nañ teg politique à partir du moment où je suis la présidente du conseil départemental nañ jël politique ba teg ko fee ñu jël notre dénominateur commun qui le département qui est notre seul euh, donc euh, parti politique ñu liggéey fi développement loolu yàlla dimbali na ma ci ba tey jii ma mën a bokk ci conseil départemental yi nga xam ne nii am nañu trois prix deux au niveau international benn au niveau national à cause des résultats probant du ay caaxaana ah, parce que nag toog di wax moom yomb na waaye wax loo xam ne nii kenn du ko weddi tamit lu am solo la ci kilifa loolu daal ñu ngi ciy sant bu baax a baax di invité sama mbokk yi ñu à plus de retenue un homme politique doit un homme d'État un politique un acteur politique doit être une référence un homme politique doit plus euh, euh, privilégier les actions concrètes envers les populations pour lesquelles il a été élu que de d'invectives que de paroles malsaines que de xasante gaaru waalante xolu jaru ko parce que àddina bi tabaarakallah ku ne xam na ni jeex na ba pare te ku yebu rek looy def rek ci acte rek mu doon lu baax nga seet ci bis boo laloo sa ndeyjoor euh, mu xam ni kenn du la fa fekk yaay du la fa fekk baay du fekk man nag doomu daara laa moo tax yu bëri ma koy bàyyi xel ndax damaa ragal suñu borom ndax ña dem dellu seeguñu ñun ñi fi des jàmbaar bàyyiwuñu fi ah la yooyu tamit tax euh, tawxiit day baax des fois ñuy def tuuti tawxiid di ci bàyyi suñu borom tuuti xel ndax nag euh, ku am doole rek moo la ko may

kañ nga koy wax nan nga koy waxee koo koy waxal ak foo koy waxee ñeent yooyu moo dajeegul ba ma war a communiquer nag en grande pompe ci ce que di remercier nag Sénégal set à travers yéen seen kilifa sama càmmiñu bopp euh, nga xam ne ca wéy jur ya la woon démb muy Papa Ngagne Ndiaye muy xale bu baax xale bu bëgg lu baax xale bu am fayda bu am fulla ku ma nawloo tabaarakallaa di leen ñaanal yal na leen yàlla may ngeen doon mag ñu am barke seen liggéey ngeen continuer ko ci dara bañ leen a fakastalu di ñaanal toute la umma islamique ah, di ñaanal mam Serigne bay si Serigne Babacar Sy Cheikh Mouhamadul Mansour ak toute la famille de Seydil Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu ñu gàmmu gàmmu gu dal ku nekk gàmmu ci sa kër allah ñi fi ñëw ak si ñu ñibbi ci jàmm ak salaam ñu teewe ko ati ati at te bu ñëw rek dàq lépp nekk ci jàmm ak wér ak sutura ak euh, tabarakallah tawfiix di wax wa axiru daawana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë